lu dalee nag jàmm démb la réewum France daal di delloo réewum Sénégal jaasi mi nga xam ne nag El Hadj Omar Foutiyou Tall moom la doon yore jullikaay bi di Sud ko di ñu xamal ni mbir ya nag démb la xewee fa li nga xam ne moom mooy ca palais présidentiel foofu sax njiitu réewum Sénégal di Macky Sall moom daal di nay rafetlu nag noonu nga xam ne nag moom la réewum France daal di doxalee ndaxte moom loolu la mu ci gis moom mooy ne day gën a dëggal jàmm gi am ci diggante ñaari réew yooyu njiitu réew mi di ci yokk di xam le ni léegi kay fi mu nekk nii pare nañu nag ngir lépp ak réewum Sénégal moom moo ko moom te mu nekk fa li nga xam ne moom mooy ca France ñu daal koy indi si waat nag ci ni mu gën euh, gaawee kii nga xam ne nag moom mooy jëriñ gu njëkk bu réewum France di Édouard Philippe moom it daal di rafetlu nag euh, nga xam ne ci la daal di euh, delloowaat nag réewum Sénégal jaasi bu El Hadj Omar Foutiyou Tall moom sax la mu xamle moom mooy ne jaasi boobu kay place am moom fii la fii ci biir réew mi bi di si quotidien diñ ci yokk di ñu xamal ne nag ba ñu daal di delloowee nag am amu Cheikh Omar Foutiyou Tall njab njabootu Umayyan ñoom it daal ne am na yeneen yoo xam ko moom te mu nekkoon foofu nga xam ne la moom mooy ca France ñoom bii di Le Soleil di ñu xamal ne nag ba ñu daal di amalee cérémonie boobu nag kii di Edouard Philippe moom it daal di nay amal ab ndaje ak njiitu réewum Sénégal si foofu sax la dal daal di xaatime ci lu tolloog juróom-benni accord de yoo xam ne nag bëri na ci ay secteurs yoo xam ne daal dinañ ko fa mën dëggal ci wàllu coppite yi nga xam ne nag dinañu ko indi ci assemblée nationale te mu jublu nag ci wàllu budget programme ci biir culikaay bi di Sud Quotidien ki nekkoon député di Cheikh Oumar moom mooy daal di xamle ne du am benn coppite boo xam ne nag dina ko indi ci liggéey yi nga xam ne nag député yi ñoo ngi koy amal Cheikh Oumar Sy culikaay bii di mi ngi ñuy xamal ne moom moo nekkoon ganub émission bii di objection ci waxtaan bi mu seex ak baay Oumar Gueye daal dinay ñëwaat nag ci wàllu budget programme boobu lañ cee xaar wante it daal dinay xam ne daal ne dina am tamit yenn ci ay rëq-rëq yoo xam ne daal dinañu ko nemmeeku ci wàll gi ni mel moom moomu tamit daal dina yeey ab di ko ci mbiroom député bii di Seydina Fall Bougazelli mi nga mu ngi ko xamal ne moom mujjeewul ñëw loolu sax moom moo tax nag ba waa section de recherche ñoom fu mu nekk ni sax ñoo koy wër colikay bi di les échos nañu moom moomu di Bougazelli su fekkente ne nag kon daal dinañu koy gis dinañu ko placer en garde à vue la laata nag ñu koy yóbbu ci kanamu procureur colikay bi di enquête sax duñu xamal ne procureur moom dong moom rek de moom moo war a mën a déglu nag ki nga xam ne de moom mooy Bougazeli loolu sax moom moo tax boo colikay bi di enquête di xamle ne procureur fi mu nekk ni nag koy xaar ci naka la fas yéene nag doxalee jëmale ko ci wàll gi ni mel critique daal di ñu yëgal ne li am ba des ki di Seydina Fall Bougazeli moom daal dina xamle ne tey ji dina dem nag wuy ji ci convocation bu gendarmerie colikay bi di critique ne li ci kanam rawligat dinañu xam ndax tey ji dina wi ci am déet ñuy fàttali ak culikaay bi di Sud Quotidien ne nag kii di Seydina Fall Bougazelli moom de ci affaire de trafic de faux billets koy daal di tuumaal Abdou Aziz nekk conseiller en management daal di gis nag ne affaire yu mel noonu ak tamit gànnaay yi nga xam ne dañu ko sàccoon fii ci wakaam ñu gis ko fa li nga xam ne moom mooy ci diwaanu Pire ak tamit drogue bu bëri bi nga xam ne nag ñoo ngi koy nemmeeku ci suñu biir réew loolu moom ay gàllankoor la ci suñu wàllu économie wante nag li a ñooñu moom ay kàngaam lañu te yenn saay sax duñu leen def dara boobu nag fekk na ne ci biir prison yi nag bëri na ñoo xam ne nag dañu leen fa tëj te la ñu dafa gën a néew Abdou Aziz Tall ba léegi ci biir républicain bii di Sud Quotidien daal di am njàqare ki nga xam ne moom la ñu jàpp tey ji ci affaire faux billets yooyu de moom mi ngi bokk ci biir assemblée nationale ab assemblée boo xam ne nag moom mooy voté loi yi nga xam ne moom moo am fii ci mim réew su fekkente ne moo def ak moo deful li am ba des moom mooy ne ñu bëri fu mu nekk nii sax amuñu si benn njort maanaam mooy ne yeneen affaire yi nga xam ne sax moom moo ko jiitee te nag mujjewul fenn suñu moytuwulee nag bii tamit de noonu lay demee jeexalee ko ak xam ne nag ki di Luc Nicolaï ko ko bëgg a tëggal mu war kaa mën a seq ak ki nga xam ne de moom mooy Modou Lo Ama daal di xamle ni moom fu mu nekk nii nag ci cachet bi nga xam ne moom la Luc Nicolaï di wax ni moom la koy fay moom moo yey daal di koy lànk ndaxte moom nee na fu mu nekk ni daal ci wàllu combat boobu nag daf ci teg bakkanam kon kay ngir mu war a mën a sëgg moom sax colikaay bii di sunu lamb duñu moom mooy Luc Nicolaï colikaay bii di ne sax Luc moom parewul ngir a mën a tëgg combat googu ñoom daal dinañuy fort ci wéewu bay ne am na yeneen promoteur yoo xam ne nag ngir jébbal kii di Ama Baldé ci lu tolloo quatre-vingt-dix millions wala boog cent millions ngir a mën a bëre ak ki nga xam ne de moom mooy Luc xam ne nag colikaay bii di sunu lamb daal dina koy xëyee moom mooy génnub àddina Pape Dia nekk nekk mag ak manageru euh, bombardier groupe sud communication di jébbal njaalam kii di Serigne Dia bombardier